tey nag dañoo ñëwoon fii pour waxtaan ak yéen euh, ndaxte euh, monsieur le maire ñu ngi koy nuyu di ko jox euh, wàccuwaayam bu mu ba mu mat sëkk di wax ni démb dañoo gis benn information ba nga xam ni dafa jàppale étudiants yi ñu jóge fi ñu nekk ci université yi ñu nekk ñibbisi ci cees ñun nag ñi nga gis nii ñooy fédération bi ak waa Dakar waa Dakar si lañ bokk convié woon nañ leen euh, si réunion bi mais xamuñu lu tax euh, ñëwuñu waaw après dinañ leen dinañ ci jéem a am ay def jéego pour xam lu tax ñëwuñu bi ñu gisee information bi ñun tamit ñu rafetlu li mu def waaye aussi tamit ñuy naqarlu loolu noonu parce que tey ñun ñëpp ay étudiants lañu ñun ñëpp dañoo nekk fu sore sori déplacement boobu mu joxe.

depuis boobu ba léegi ñu ngi daw si ginnaaw autorité bu ñu jàppale depuis 2017 2016 ba tey jotuñu subvention monsieur le maire def na ay sorties ne euh, dinañu génneel subvention boobu dinañu génneel xaalis boobu woowoon nañu fi nag mairie bi woowoon nañ ñu jox ñu kenn ku ne xaalis mais boobu ba léegi gisaatuñu ñu defaat encore beneen jéego tey ñu leen di wax ne ñun fi ñu nekk si université yu ñu nekk Thiès moo tax ñu dem fa fi tay buñ fi jógee pour jang deug la suñu bop la mais aussi tamit pour dimbali suñu gox motax tax ñuy wu dem di wuti luñu am ndax tay ñun amuñu lenn lu dul Thiès bu ko gisee tamit ñi ngi koy ñi massawu tamit euh, monde bi yépp ci feebar bi nga xamné mom moy euh, coronavirus bi ñuy wax di euh, lancer appel à toute la population ñu def li nga xamné mom le président wax ñun ñëpp nañ moytu ndaxte loolu feebar bu garaaw la ñu continuer li ñuy wax rek mooy bi ko defee bi nga xamee ni tey feebar bi am na ñu ne kenn ku nekk na nga ñibbi fi nga jógee ñun ñëpp dañoo dellu si daw si ñëwaat Thiès toog fii donc ñun cees la ñu am cees moo ñu ñor bëgg nañu nit ñi jàppale nañu ñëpp ñëw jàppale parce que li ñuy dund metti na trop trop trop